jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz ñu amati mbégte ak kontaante saa su ne ñu ngi dalalaat ki nga xamante ne mooy sëñ Cissé ah sëñ Cissé nag tey ñu fas ne waxtaan ak moom li nga xamante ne tey li jëm ci mbir mu fédération Sénégal ak lu jëm ci mbir mu football bi sëñ Cissé defal nañ fi benn sortie ne bu ma fédération woowee dinaa jël samay kéemtulaay kattan taxaw li nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal ba mu qualifié fédération woo ko mu waa ñu mu defaat beneen sortie moom sëñ muy dalal xelu sénégalais ne incha allah rabbi match bi Sénégal dina nekk dina ko gagné mais ci kaw wax yooyu noonu am na lu mu ci waxoon nee na match bi dina nekk match boo xam ne match jinne la te match buy seere la te dëgg la gis nañ démb match bi ni mu demee am na ay vidéo yoo xamante sax ñu ngi fii nga xamante ne tey ñu denc ñun waa Actubuzz mooy vidéo yi nga xam ñu tuddee VAR incha allah bi xam naa bu ñu waxtaanee tuuti ak dellu VAR bàyyi ko mu nuyoo tuuti sëñ Cissé ñu ngi lay nuyu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ñoo ngi nuyu mbokki àddina sépp di jiital ci nuyo bi sëriñ Muntaxa Basiir yàlla yàggal ko fi loolu te mbir noonu lañ def di ñaanal tarixa yëpp tiijaan xaadir la ñeseen ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal comme ni ñu ko ñaan sëriñ Muntaxa Basiiru maa ngi nuyu askanu senegal gépp di ñaan ci yàlla jàmm yàgg fii ci Sénégal noonu lañ def di ñaanal waa bitim réew yëpp suñuy yaay ak suñuy baay ak suñuy rakk ak suñuy mag ya fa nekk di daan doole yàlla defal leen jàmm ak tawféex jàmm ba ñibbisiwaat ci seen njaboot noonu lañ def di ñaanal waa Ukraine ak Russie yàlla tuur fa jàmm te incha allah yàggatul dara jàmm dana fa am. Mm-hmm. salaam. Ah, jërëjëf sëñ Cissé ah, gis nañ ah, kàddu yi nga xamante ne defoon nga ko nga def sorti fi nga xamante ne mooy Actubuzz ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy match Sénégal Égypte bi mooy retour bi ginnaaw gis nañ li nga xamante ne mooy ale ba Égypte da koo daanu benn bal ci dara ñu jëli woon la fii nga toog nga ne bu ma fédération bi woowee incha allah rabi dinaa ci taxaw ba Sénégal qualifié li nga xam ne mooy coupe du monde diggante boobu bala fédération waaye ak léegi gis nañ taxaw bi nga xam taxaw nga démb ci li nga xamante mooy équipe bi mais ñu ñëw ci match bi nga nga génne woon bii passé avant match bii di waaw abu ñoo ngi jaaraat bu baax daanaka nag daanaka loolu moom liñ ciy wax daanaka du bari ndax man dafa am ñaari kàddu yoo xam ne moom laay saxoo chaque jour mm-hmm. muy kàddu yan ab jullit laa mm-hmm. yëfi jullit laay def beneen kàddu bi ci def taalibab cheikhul xadim la nekk ci kapaaru Serigne Touba kon nag yaakaar naa yëfi jullit laay def te ab jullit laa ñaari kàddu yi daal laa saxoo bu dee cadre max bi nag génn nañ fi wax ni. Mm-hmm. bu ne fédération bi woowee incha allah bu neexee yàlla. Mm-hmm. équipe bi danañ ko qualifier. yàlla def nag ñu déggoo ci ak ngeen ci war a déggool. Mm-hmm. di ko santaate yàlla bu baax. yàlla def tamit bi ñu ko defee ndawee askanu senegal yépp génn fu ne la may nit di woowee. di ñaan ñii di yónnee seen xaalis. ñii tamit wax dëgg yàlla di ma wax wax ju rafet may ma jàpp leen ngir jëmmi yàlla rek ko rasul yi. ma xamal leen wax leen ni leen. da ngeen maa fekk may dimbali équipe bi anda am loo xam sama doole moo ko matewut te mag bi ku ko seetaan xam ni ah. sama doole matewutoon lépp yàlla def nag bi ma fédération bi woowee maa ngi sant bu baax kooku nag wax dëgg yàlla <laughs> bëggu sax may tudd turam mhm. def bi ma wooyee suba bi ne suba la ay 17 heures xama 18 heures laa tourné émission ak yow ni la na sénégalais yi dalal seen xel bu baax lekk ba suur naan ba màndi vidéo yi mi ngi tiktok mi ngi youtube fépp mhm. bu neexee yàlla Sénégal dana am ndam ci kaw Égypte Sénégal dana qualifié. jërëjëf sëñ Cissé foofu tuuti pour ñu dem xool li nga xamante mooy mooy wax jàng ci waxoon internet ak Actubuzz. ma lay xamal daal. Hmm. sama kàddu sama kàddu tey doomu Sénégal la doomu réew mi la équipe bi ma ñor Sénégal ma ñor. wante la ma waxan ci Coupe d'Afrique bu ma Sénégal woowaatee incha allah bu neexee yàlla dinaa qualifié Sénégal ci digganteem ak Égypte ci retour bi bu ma Sénégal waatee incha allah leen daal laa muy maa ngi toroxluwaat ci kanamu yàlla mhm. lépp lu am rek yàlla la ak lu neex yàlla sama kàddu gi tam bu egg yàlla la mhm. wante incha allah bu neexee yàlla na ma téewoon sama kurus toog ci sama der di def sama sacrifice bopp sama saraxi bopp mhm. sama ñaan di ko ñaan yàlla noonu laa koy defewaat suba te incha allah bu neexee yàlla Sénégal am na yaakaar ak yaqin ni dana gagné Égypte qualifié incha allah. nga ñëw dugal un ngeen dem prolongation fexe noo ko naxee ba gañ ko. Mm, mm. loolu mënta yomb. ànd bu neexee yàlla incha allah suba moom dangay gis mbiri jinne te suba incha allah bu neexee yàlla Sénégal dana qualifié ci kàttanu ak yàlla. ah gis ngeen ñoo ko gisandoo mbokk internet Actubuzz li nga xamante ne tey mooy sëñ boo waxoon na ko sëñ Cissé ñu départ fi nga nekkoon léegi léegi fu am solo nga nekkoon. waaye yàlla def tamit bi ñu woowee 17 eh, heures lañ tourné vidéo bi. bi ñu ko dugalee ay guddi. ma xamal Sénégal yi ne na seen xel dal. ñu lekk ba suur naan ba màndi Sénégal dana gagné Égypte dana qualifié. ba nu koy wax nag du sun naf si bopp ndax yaakaar naa suba la maximum nga taxaw ci média di wax. du loo xam da nga koy làmbatu. loo xam ne tamit sa coobaree bopp ngay wax. ak média bi nga xam ne xale yi leen xewal TikTok laa yeneen ak yeneen. doonte sax yooyu kiiwuñu. wante lu ñuy wax ak yaqin léegi nag bi nu génnee wax loolu dalal xelu askan bi te booba lan wax tamit luñ gëm la te lu nekk ci ñun la man leen max bi du yomb ndax boo xoolee Sénégal daal war a ñoo dugal deux wala trois wala ñu dem prolongation nga nax ko gañ ko dëgg la max bi xamal na ni euh, fii lay mujje tiro bii bi lay mujj mhm. yàlla def nag man teel naa fa dem sax man maa ngi fa dem ay huit heures mhm. astaghfirullah neuf heures laa fa dem dafa am problème mu dugg lool sax wax dëgg yàlla ñu jàng dafa ay coono añi ñun ndékkiwun wax dëgg yàlla ànd loolu yëpp sama réew moo ma ko jaral mm-hmm. réew mi moom ma ko jaral ndax réew mi am ndam moom ma ko jaral wax dëgg yàlla ñi ma ci doon liggéey nag maa ngi leen sant bu baax a baax di santaat euh, askanu Sénégal man gëm naa ci réew mi laa dëkk ndax réew mi wallahi fu la la may nit di woowee mm-hmm. di ma ñaan pour ma ñaan ci équipe bi démb fu ne la may nit di ma félicité mm-hmm. maa ngi santaat réew mi bu baax di ñaanal xale yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan tamit ndam lii yàlla na nu jik te Égypte gee tamit bu yàlla na ko yàlla may yeneen i ndam. Mhm. ci barke Seexul Xaddim. jërëjëf sëñ Cissé comme li nga wax léegi léegi nii ci laay duggaat ak yow gis nañ ba keroog ba ñu lay jël si émission bi di sa terme boobu noonu appel yi bari woon na lool lool loo xamante ne loolu man maa fekkee ñu bari di la woo di la wax sëñ bi suba marché bi du muy demee ngay dalal seen i xel liggéey bi nga liggéey ci li nga xamante mooy marché démb bi. coono gi ci daj métti na wala méttiwul. waaw Abu daanaka liggéey boo xam ne moom méttaay boo xam bànneex lay mujj jar na ko. Mm-hmm. ndax man bi ne suba la mag si laa isati ni incha allah ndam samay isati whatsapp ñi may am ami whatsapp ñi ngi koy gis. Mm-hmm. laay isati chaque mag laa koy isati bu ne suba la mag si laay isati bu neex yàlla. Mm-hmm. ba bi may dem ci yoon yi dem esat tamit maa ko bind en route. ay esat pour dalal xelu askan bi ba ma demee esat tamit yu baree bari kii nan leen ko won leen ko ngir ñiy mm-hmm. seetaan seen xel dal loolu la wante comme liggéey boo xam ne yombul mm-hmm. wante lépp rek ci ci ci ci ak kii ci ci bànneex la mujj daal mm-hmm. njëkk naqar moo gën njëkk bànneex ba pare mujj naqar wante xamal na ne maxi bi nii lay deme mu guddi ak mu yéex Sénégal day am ndam ci kaw Égypte waaw wante maa ngi santaat bu baax di santaat joueurs yi bu baax a baax a baax équipe nationale bi wax dëgg yàlla démb football nan te wane woon na ne ay gaynde lan te yàlla xam na ni bëgg sama réew moo tax ma dagg sama yitte bàyyi sama liggéey gi yëpp dem stade seetaan leen ndax ci réew mi laa dëkk. bu ma réew mi joxe ak bu ma joxe di yëpp man citoyen ci réew mi laa dëkk. lu réew mi àndandoo bëgg dama koy àndandoo bëgg. Mm. lu réew mi àndandoo bañ dama koy àndandoo bañ. Mm. kon nag dañuy ñaanal yàlla équipe bi gën a dem ca kaw ca kanam ci barke Cheikhul Khadim. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Cissé waxtaan yooyu am na solo léegi léegi léegi dañuy gis ne saa bu Sénégal di ñaan yi xale yi fu ne la ñuy ñëw nga di leen sarax mais nag comme nag génn nañ ci li nga xamante mooy qualification bi ñu jëm li nga xam ne mooy coupe du monde ban façon taxawaay la seen war a taxaw wala bu la bi tamit engagé si coupe du monde bi ñu fas yéene pare waaw Abou man xam nga ñaan mooy sama métier. Mhm. ci laay terale samay mbokk. Mhm. terale waajur. te teral ci képp koo xam ne wax ashhadu an la ilaha wala képp koo xam ne yàlla bool na ma ak yow. Mhm. ci laa lay terale xaaruma fédération xaaruma kenn. waaw xaar ma kenn wante daal fii may wax ak yow. coupe du monde moom bu Sénégal pare tey tey tey tey ñu liggéey si. incha allah jëm coupe du monde. te may xamal tamit ni fédération bi muy liggéey coupe du monde heure bii la. heure bii nga war a mën a commencé nag liggéey def lu wér lu wóor di leen xamal ni leen coupe du monde bi bis bu Sénégal demee te mystigul carrément. Mhm. danañ am lu metti mhm. li may xamal daal eh, ñi nga xam ñoo ŋànk équipe bi. Mhm. nan jàpp ni Sénégal dafa war a mystique Sénégal mystique ci ci ci daa bokk ci moom équipe bi mystique daa bokk ci moom boo xoolee démb bi gis nga bit bi ñu dugal. da lay leer na bitu mystique la. Mhm. bit boo xam ne du cinq minutes wala six te gis nga bit ba noom duggee. Mhm. falax falax di dugg xam bit na lii mbiri jënd la. wante Sénégal mystique mënut a dem bàyyi mystique mystique mënu kaa dem bàyyi ko kon fi ma lay waxee coupe du monde heure bii lañ ko préparé. Mhm. def ci lu man ak lu mënut. bis buñ ko defee équipe bi dinañ ko séntu foo xam ne wallahi la xasi foogewuñ ko wante buñ ko yaafuusee nag di ko xaar ba ñëw ñu ciy door jëkk wallahi équipe bi dina am mbetteel man maa leen ko wax wante li ma la mën a xam fédération beeg ñëpp a ci yam ku ma si woo allah dinaa liggéey ak xanaa dan ma fekk wante kay maa ngi ci wax dëgg yàlla xaaruma fédération xaaruma kenn wante nag maa ngi ci daal wante bu neexee yàlla incha allah képp koo xam ne woo nañ ci rek dinañ ci waxtaan ak yo daal ñun daal ñaaray suñu métier daal mm-hmm. dëgg la ñi nga xamante ne di laa bëgg sopp la lool sëñ Cissé di la wooy fu ne ci réew mi xam nga bitim réew fu ne tey lan ngay wax ñooñu tey parce que nag gars yi nag dalal nga seen xel parce que dem ba nga gën a bëgg ne gars yi dalal seen xel xel dal na démb bu baax a baax sax. bu daa am loo xam ne gis nga mënuma. Mhm. kenn du ko wax. <coughs> déggal comme diw mënut mënuma kee mënu rek kon kenn du ko wax. ndax abu yàlla day may ab jaam. Mhm. yàlla dara jomb ko. léegi nag yàlla mën na laa may maykee seen i may duñ doon benn wante comme damay wax ne nungul naa ñëpp la leen yàlla may mhm. moo tax dama ne kenn manul dara wante ku nekk la ko yàlla may rek nungul ko ko waaw te lépp lu yàlla yor tamit iñaanoo ko may ab jaam mhm. ndax képp koy sonne ci yàlla dana la may lu mayul kenn mhm. waaw képp koo xam ne sonnoo ci moom dana la may loo xam ne mayu ko keneen noonu lay mbiram demee wante maa ngi wax askan bi ni leen aw ma seen fay fu ne laay gisee appel yi fu ne laay gis message boo xam damay toog ba sax nit wéef ma dara ñu mm-hmm. ma sama xol moo sedd xaw ma la ci internet bi rek laa la seetaan dama am cofeel ci yow lool nag du dara gënuma leen ab juddu gënuma leen dara xañ yàlla mooy def loolu mm-hmm. te ma nekk ndaw comme ñoom taxaw ngir sama réew mm-hmm. ande maa ngi leen ci ñaanal bu baax a baax a baax a baax ñi ma woo ak ñi ma woo maa ngi ñaan yàlla taxaw leen yokk leen kartan gi yokk leen xéewal ci barke Seexul gis nga damay wax chaque jour ma ni ndaw yi ñoo moom ñooy ñooy ñooy ndaw yi ñooy kii eh, yori réew mi ëllëg lii rek wane na ko boo xoolee stade démb ndaw ñi ñoo fa ëpp mm-hmm. man démb de mën naa stade te wax dëgg yàlla ba ma fa demee gis naa ndaw ñi nan taxawoo mm-hmm. kon nag dañuy santaat yàlla bu baax di julli ci di xam ni kontaan bu baax a baax laa daanaka dag ñoo fekk ci émission bettuñu loolu moom moo tax ndax doonoo waaj aw yoon nii war a génn wante nag wax dëgg yàlla kontaan nan bu baax a baax a baax kàddu yi daal kàddu sant la kàddu sant gi nag yàlla subhaanahu wa taala laay sant ndax moom rek laa war a sant ndax lépp lu ma wax mu jub moo ma lu dëngat ci man la te wax dëgg yàlla lépp loo xam ne wax naa ko mu tombe ko rek wax dëgg yàlla ci moom la neex donte nag ban koy wax moom moo na xamal ni nag ah ñoo seet xam ni kat lii la ci mbaaxam ñu génn wax ko yàlla tombeel ko ànd daal ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax daal alhamdulilah jërëjëf ah, mbokku internet Actubuzz ah, gis ngeen li nga xam ne mooy sëñ Cissé kaddu yi nga xam ne waxtaan nañ ko léegi léegi nii muy kaddu yu am solo lool lool lool lool lool lool ci mbirum li nga xamante ne mooy sànqat kaaraange yeeg yëpp moom fim mu ne nii moom xam naa ne daanaka yooyu moom kiiwatuñ ci ndax boo duggee ci site gis nga yëpp daanaka tey moom waaw Eh, yéen a ma bett moo tax may ma taxaw ma taxaw daal sant askan wi leeralaat bu baax daal xanaa kàddu yi sant rek la ñuy def noonu la da di santaat askan wi yëpp di sant Sénégal mhm. waa Sénégal gi xam fi laa juddoo yoroo fi màgge fi maa ngi leen sant bu baax góor ak jigéen mag ak ndaw mhm. di sant diaspora bitim réew mhm. ñoom it fu ne laay gisee seen i réa ak seen appel maa ngi leen sant bu baax ba di leen ñaanal ku nekk aaja jang fa am rek yal na la yàlla defal nga am ko ba ñibbi si sa njaboot di sant wax dëgg yàlla mm-hmm. yëmbal gii ma dëkk mm-hmm. muy koñ bi nga xam ne fi laa nekk mm-hmm. maa ngi sant kon na Marème Niass di sama yaay fii nga xam ni sarax yu ma war a saraxe rek moom moo koy togg moo koy def dem ba may dem sarax yëpp laa ko bataleel moom mënuma kaa fa yàlla na ko yàlla taxaw baax ak maire Aïda Thiam ak ñëpp maa ngi leen di sant xale yeeg jëmm Thiam ak ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax daal maa ngi santaat Serigne Mountakha Bassirou bu baax wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi te mu war Mbàkke ndax man ab jullit la taalibeeb sëñ Tuubaa la loolu feer la ci man yëfi jullit laay def te taalibeeb sëñ Tuubaa la noonu def di ñaanal tarix yëpp tiijaan xaadir laayet ñeseen ñëpp yàlla defal leen jàmm comme ni ma ko ñaanale sëñ Muntaxa mm-hmm. écrén ak riis yàlla na fa yàlla tuur jàmm mm-hmm. ba jàmm ñëwaat fa te incha allah yàggul dara jàmm dana fa am mm-hmm. waaw wante daal kontaan naa bu baax di gërëm Tuubaa ga nga xam ne tey ji falaa yee falaa yeewoo ndax dëgg yàlla maa ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan bu baax boo xoolee. Hmm. danoo xaw mel ni ku malaat. moo tax daanaka yaram bi xawuta nii daal moo tax hmm. daanaka sawarul nan war a sawaram ànde ñoo ngi sant yàlla bu baax di gërëm ñëpp di hmm. gërëm sama benn góor goo xam ni Ahmed Diop Mohamed Diop di doomi Daam maa koy sant bu baax di sama xarit di sama wóole di sama lépp di nit ko yàlla baaxal maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ànde daal démb daal wax dëgg yàlla danoo xaw a sonn ànde sonn gi daal bànneex la ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu